Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Cheikh Ndiaye nga nekk analyste géopolitique déjà naka nga mën a faram-fàccee bi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko amal na ko ca Mali. waaw visite bi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko amal na ko ca Mali visite la bu important ndax day wane ni Sénégal ak Mali xëy na ñaari dëkk la mais benn peuple la dañoo yàgg bokk histoire bi nañ ko jëlee depuis l'empire du Mali. depuis la charte bi Mandé ak yeneen ak yeneen bu wane ni Sénégal ak Mali dëkk la yoo xam dañoo bokk histoire moo tax dañu war di demelante moo tax bi premier ministre bi boo seetloo dem rek da gis ni Maliens yi dañ cee kontaan parce que ku mel ni premier ministre Choguel Maïga Ousmane Sonko di wàcc ci aéroport bi sax da ngay gis mooy kontaan ànd ak furi accueillir de manière vraiment bu wane ay frère lañu moo tax visite boobu liñ ci war a njëkk jàng élan panafricaniste bi nga xam ne autorités yi nga xam ne actuel actuel egsi nañ Sénégal moom lañ nekk di wane parce que hmm. président Diomaye Faye mu toogee ci gannaaw ba mu visité quelques pays Afrique de l'Ouest dafa dem ca Mali dem Burkina dem Niger fu wane ni même problème bu amee ci biir organisation régionale bi waxtaan boobu mooy mën a taxtaat ñu mën a retrouver wu autour de l' essentiel gis nañu CEDEAO bi ay coup d'état amee ca Mali donc CEDEAO dafa jël ay sanctions loolu nag euh, merloo autorité malienne yi coup d'état am ci Niger CEDEAO jël sanction dem bañ sax dañuy defar benn force militaire bu dem attaque Niger même chose pour le Burkina loolu nag métti dëkk yooyu dëkk yooyu génn barricade wu lancé seen ñoom it organisation sous-régionale de ko alliance des états du Sahel ñuy bokk frontière boo xam ne mooy le di takku Goma teg seen alliance militaire nekk di teg seen alliance économique loolu donc fekkul woon booba ñu mel ni ñoom Ousmane Sonko Diomaye Faye nekk ci nguur gi bi ñoom bi ñu egsee nag ñoom dañu nekk benn main tendue du CEDEAO vers ces pays là pour toog retrouvé wu te benn texte interdirul donc ay pays ñu regroupé wu créé seen organisation loolu droit international tere bu dee c'est conforme en tout cas aux principes et valeurs vraiment qui dirigent ce monde là ci loolu nag moo tax bi ñu duggee Ousmane Sonko waxtaan waxtaanoo ko sax parce que nee na panafricanisme ñoom bi ñuy incarné mooy panafricanisme boo xam ne bu dialogue la bu waxtaan bu trouver ay solution par rapport à des problèmes parce que dara tamit terewul ay dëkk yu féewloo ñu war a toog waxtaan mooy ni mu ko waxee rek euh, États-Unis dóor na fi bombardement Japon te autour d'une table la ñu mujjee toog di waxtaan loolu day wane ni il est important que les pays de la CEDEAO reviennent à la raison comprendre que ni Mali Burkina ak Niger buñ ay ennemis dañ di ay dëkk yu traverse situation difficile situation boo xam ne pratiquement pays Afrique yi ko traversé yëpp gis nañu dañu sombre dañu euh, ils ne sont plus viables léegi nag loolu day wane ni en tout cas autorité sénégalaise bi bees bi ci toog xam nañ ni il est important de coopérer et de continuer à coopérer avec ces pays là même s'il y avait rupture même s'il y avait rupture ñu continuer di coopérer ñoom ndax on a nos intérêts économiques dans ces pays là waaw mm. Euh, tey jii euh, aussi ñu dal di euh, wax si visite bi nga xam ne wala sax plutôt est-ce que diplomatiquement Cheikh Ndiaye c'est normal premier ministre Ousmane Sonko dem di rendre visite président boo xam ni coup d'état la la toogee ci bopp réew mi. waaw diplomatiquement benn problème amul ci premier ministre Sénégal dem seet yi beneen premier ministre réew bu ñu jege wala beneen président réew bu ñu jege boo xam ne xëy na coup d'état la exhiber te Mali il faut ñu mettre que dans son contexte coup d'état yi li nga fa dafa am contexte boo xam ne moo ko fa delloo si waat ndax 2011 printemps arabe yi amoon Mali dafa jékki-jékki rek déstabiliser bu ay groupe terroriste yu jógee li bi ñëw nangu pratiquement la nord Mali léegi nag ci la ay coup d'état recommencé waat bis intervention ay forces étrangères ñëw pour jàppale Mali à la demande du Mali mais forces étrangères yooyu seen présence dem ba nekk occupation ba ñu doon interdire yenn zone yi accès à l'armée malienne ci la Assimi Goïta sax dañ ci interdire dugg ci benn région bu mag ca Mali mu ne leen dinaa dellu si waat te bi mu fay dellu si waat donc il a il est il est chef d'état nanguwaat boobu noonu la xewee ca Burkina noonu la xewee ca Niger donc dëkk yooyu boo seetloo seen territoire yu bëri dañ ko nangu woon li ci mujj rek Mali attaqué nañ ko fële ca Tinzaouaten te Tinzaouaten moo nekk frontière Mali ak Algérie donc loolu day wane ni Mali wax na ay territoire yu bëri. donc aspect sécuritaire bi moom la Assimi Goïta teg au cœur de sa politique pour la réunification du pays parce que bu ñu réunifiéwul Mali li ñu gis jéye la nare indi ndax Mali dafa nare divisé wu Mali dafa nare am ay problèmes yu métti yoo xam ne vraiment du ko arrangé te si loolu la CEDEAO wu jëlee woon ay sanctions daan Mali jëloon ay sanctions dem ba ni Niger sax dañ koy attaqué envoyé ko benn force boo xam ne day rétablir ak peut-être nekkoon te loolu dafa di loo xam ne c'est dangereux pour une organisation sous-régionale boo xam ne dafa war a entamer des pourparlers diplomatiques des pourparlers yoo xam ne day permettre ñu rafetluwaatal ay liens donc premier ministre sénégalais bi ci biir kuuram li mu wax c'est clair dara interview un premier ministre mu dem teeti mbokkam xool na la ñuy waxtaanee pour dialogue am jàmm amaat réew yi ñu rafetlu aussi les liens économiques entre le Sénégal et Mali parce que le Mali donc yoon day wane ni euh, vraiment jamono jii. nguur gu bees yi ñoo ngi adopté benn politique ak posture boo xam ne dina permettre xëy na état yi même bu tey rupture brutale amoon diggante AES euh, e ak CEDEAO Sénégal continuer di coopérer ak pays AES ndax ñoom wax nañ ko ñaari dirigeants yëpp boo seetloo euh, muy Bassirou Diomaye Faye ak Assimi Goïta ñoom dañoo mës a bëgg continuer di vraiment euh, raffermir suñu lien économique ak ainsi que culturel mm-hmm. mais diplomatiquement il y a pas de texte qui interdise à un premier ministre d'aller rendre visite vraiment à un pays y a eu un coup d'état parce que ñii reproché loolu ak di ko wax ñoom mën naa ni ñoom ñoo ngi dem di seeti ay dictateurs yu gën a mag ci àdduna bi di toog ak ñoom ñii ñoo ngi rendre à Moscou ñii di rendre à Pékin di défendre seen ay intérêt mais quand sa s'agit de l'Afrique on crée une terminologie on nous parle de diplomatie on nous parle de droit international alors que c'est faux débat. Cheikh euh, ñu dellu un peu ci visite bi nga xam ni PM Sonko amal na ko ca ca mu doon fekkee euh, prestation de de serment cinquième mandat la Kagame am lan moo tax cinquième mandat wu Paul Kagame dérangé wul kenn daal. waaw boo seetloo Afrique Paul Kagame dafa di africain yooyu nga xam ne. jeunesse africaine dañ ko porté jàpp ko gëm ko ndax boo seetee trajectoire politique am histoire politique am fi mu jëlee Rwanda ah si ba amoon Rwanda ni mu toogee moom ci nguur bi ni mu réunifié dëkk bi Hutu ak Tutsi wala wala autour de l'essentiel gëmloo leen ni leen Rwanda bu mu génn ci il faut ñu teg développement développement mooy comme ni ma koy waxee rek satisfaire les besoins primaires te Rwanda jamono ji boo seetloo def na commencé yu vraiment yu am dayoo Euh, ci ci wàllum développement loolu dafa di loo xam ne c'est à son actif moo tax pays bi jeunesse bi dëkk bi ñëpp dañoo ànd ak moom pratiquement euh, dañoo adopté seen système de telle sorte que saa yu présenté woo dem élection day gagné à des sports soviétiques dëgg la euh, Afrique dañoo yàgg défendre idée la laquelle président yi fii toog nañ am deux mandats ndax mooy li ñu gënal mais tamit dëkk bu nekk tu es souverain dëkk bu nekk tu indépendant par rapport à ta politique donc bu Rwandais définir seen constitution ni ñoom le nombre de mandats pas limité donc wala ay modification constitutionnelle am fa yoo xam ne Rwandais yi dañ ci ànd à la suite d'un référendum wala de de d'un acte euh, loolu mënuñu ci di ci maandu parce que dañuy jàpp ni Rwanda c'est un état souverain Sénégal amul leçon bu muy jox Rwanda ni au Mali ni au Niger ni au Burkina en tout cas li ñu mën a def mooy yéene leen jàmm waxtaan ak ñoom ramener leen au niveau des organisations régionales et continentales discuter euh, de manière euh, concrète nan la ñu mënee teg ay mécanismes yi permettre au niveau intérieur de nos états mm. ñu mën a réduire les nombres de mandats pour permettre euh, vraiment une politique fluide une classe politique qui va vraiment pouvoir relever les défis une alternance aussi démocratique parce que loolu la ñu de Sénégal ginnaaw bi fi ay président bëggee woon def troisième mandat jeunesse sénégalaise dañu taxaw jaayante loolu moo tax euh, pratiquement loolu amul gis ngeen li ci mujj am à deux mille vingt quatre te loolu sax pratiquement si li porté suñu autorités yi tey si nguur gi lañ bokk donc il appartient maintenant aux autorités sénégalaises de revoir vraiment euh, notre position et nos nos nos nos par rapport à ce nombre de mandats là essayer de les verrouiller de telle sorte que kenn dootul mën a modifier constitution pour jéem a def trois mandats parce que gis ngeen polémique yi au Sénégal donc ci loolu nag nañu mën a comprendre que ni yeneen état yi c'est des états souverains ñoom libre à eux de définir ce qui les arrange au niveau interne maintenant bu ñu ñëwee au niveau continental ou régional mën nañu ko waxtaanee ba trouver ci bi d'ici peut-être quelques années ou alternative à long terme yoo xam ne ça réduire les nombres de mandats. Euh, tey jii ban type de de relation le Sénégal war a amal wala mën a amal ak les pays de l'AES. relation bi mu war a ak euh, pays AES relation jàmm la parce que AES alliance des du Sahel bi ñu créé yàggul pays AES yi ñoom reproche bi ñuy reproché pays CEDEAO yi mooy sanction yi leen teg ci un dictat maanaam sanction la yoo xam ne dafay aveuglement dafay contre les peuples de l'AES les peuples du Mali du Burkina et du Niger xam nga ni peuple yooyu dañ nekk ci situation bu difficile situation sécuritaire boo xam ne mosu leen dal ñu yeewu suba gis au lieu ñu apporter leen le soutien militaire et le soutien vraiment logistique au contraire pays CEDEAO yu daje def comme ni Union européenne def sanctionné les pays de l'AES la e loolu barricade leen nag ñoom ñu créé seen organisation bu nekk di lancer des projets mais nag euh, Sénégal euh, sanctionné woon bokkoon na si ñu sanctionné woon Mali boo seetloo bu mais euh, sur le plan économique on l'a beaucoup ressenti moo a mu jéegi sanctions yi dañ caa mujj yëkkati dindi ko te progressivement ñoo ngi CEDEAO moo ngi travaillé à à lever vraiment de de toutes sortes de sanctions contre les les pays de l'AES mais nag teewul gis nañ ni sommet yi mujj am am na ay décisions yu jëlaat sax yoo xam ne xëy na baaxul maanaam wàllum euh, visa pour ñiy jugee dans ces pays là te loolu nekkul lu ñu rafetlu ndax euh, lien intrinsèque rek ñu yàgg am avec euh, le Mali le Burkina et le Niger mais autorités sénégalaises yu bees yi daal seen position wane nañ ko parce que nee nañ ci seen nguur du ñu mës a nekk di sanctionné Mali wala di jël ay décision yoo xam ne dafa naka déstabiliser Mali comme ambassadeur ukrainien bi nekkoon Dakar gis ngeen ni postam bi mu def ba ñu rappelé que à sax moo tax man ma doon wax yenn waxtaan yi dañ ko waroon vraiment euh, dañu waroon rompre sax suñu relation diplomatique avec pratiquement ce pays-là parce que nous nous comprendre un État comme l'Ukraine de soutenir des forces terroristes dans un pays frère, pays ami qui coopère avec le Sénégal donc il fallait faire vital avec l'Ukraine parce que li ñu nekk di def nii mooy importer guerre ba ñuy def ak si ñoom sur le sol africain te loolu c'est quelque e de très dangereux et ce qui est désolant mooy gisuñu si Union africaine def ci communauté bu bu bu baax gisuñu si CEDEAO wax ci ñun daal position yu éphémère position yoo xam ne convaincre kenn moo tax il est temps que daal Sénégal xoolaat ay position bu baax jël ay décision yu mat concernant ses relations diplomatiques avec ces pays-là. Cheikh Ndiaye ñu ngi lay remercier ci sa disponibilité. may fàttali ni Cheikh Ndiaye euh, analyste géopolitique nga merci beaucoup jërëjëf.